askan wakaam jaaxle na lool ginnaaw biñ fa nemmeekoo ay agression yu bëri ba benn doomu aadama ñàkk ci bakkanam insécurité bi bon maa ngi dégg euh, barki démb décès bi jotoon am ah, voilà donc euh, en ce qui me concerne personnellement métti na même su même ñi dëkku Wakaam sax métti na leen waaw ndax il paraît que waa ji dafa waroon a euh, delluwaat euh, Paris euh, il paraît que sax njabootam daanaka ñi ngi ñëw donc loolu kum ci nekkoon ci ñun tamit dina la métti. ñàkkum kaaraange bi nekk lu bees ci ñoom ñi fa fare. yàgg naa fi dëkk mais li nga xamante ni mooy wàllum kaa bi fi am barki démb bon bett nañu bëri aussi. ci li nga xamante ni aussi moo jëm ci insécurité bi wax dëgg wakaam moom man lii maa ngi koy soog a dégg. Abdou Lahat Ngom di daan am foofu di ñu xamal ni rek li ni mel indi na ay gàllankoor yu bari ci liggéeyam. sécurité teg ko ci mbedd yi rek comme yeneen problème bu amee ñu jël sécurité yëpp génne ko ci mbedd mais ni ñu mën a toppee benn nit kay di génnee nit ñëpp ci mbedd mi ñi sécurité nit ñi même bu dara amul nañ génne sécurité bi ñu génne ci mbedd mi jàppale doomu aadama ñu mën a xëy liggéey am jàmm. askan bi yeewoo Wakaam mu ngi ñaax préfet mu sàmm kàddu yi mu yëkkati woon ci mbir mi di nguur gi dina ci jël ay matuwaay yu wóor.